joie. bi ñu teg mu am lu ko téye muy juróom ñu jël lu ñuy wax ànd nawle ànd liggéey beneen bi ci des mu yokk yokk ba yëg ko yokk ba yëg ko mën nañoo jël fastabiqul xayraati aynama takunu yati bikumullahu jamian ku jànge ci daara ku bëgg lu baax kenn warulaa jiit ci bëgg lu baax kenn war laa jiit ci fekk lu baax fu mu am nga jéem ko jëli loolu moo tax ma bëgg lu baax lii nga xam ne nii dafa nekk koo fal muy réew bis buñ ko jotee diis gan ndax wayefal mooy lan mooy politique biñ jël bëgg koo wayefal politique boobu mooy fal njiitum réew waaye dañ ko wayefal trop ba ñu bari bëgguñ cee dugg la tax ñu bëgguñ cee dugg mooy kat mooy jàpp nañ ne wax lu dëgg wala def lu dëgg moo leen ci dugal yaa ayuha alladina amanu li ma taquluuna maa la na kabura maqtan inda allahi an taqulu maa la tafaaluuna ma pare ma ne lan moo ci tegu ci point yi mooy daara ji daara moom xam ngeen ne mooy daara tey dafa am nu mu soppi ko te ñoom xamuñ ko bu njëkk dañoo jëloon daara ji d'accord nañ ne balaa place yarukaay la d'accord nañ ne place jàngukaay la waaye jëluñ ko woon ne muy place bu nit mën a jóge soppi ko am fa loo xam ne lii ëllëg mën na jariñ société bi kon nag daara jooju ñu doon jàngee nañ ko gën a fonk waaye pour ñu fonk ko nag nañ fexe ba daara ji feeñ ci lii ñu jëm beneen bi mooy tool bi tool bi moo xam ngeen ne mook daara ànd ñun bañ nekkee ci daara ji jàng fajar bu xëy suba ñu tool ba ci lañ jànge liggéey ci lañ jànge lu metti ci lañ jànge lépp dem tool sax ko daan def fañ daan tool man trois kilomètres mais daawuñ sol daal ndax amuñ ko woon loolu buñ ko jëlee rek buñ ko jëlee rek mooy amalu fa sayara laahu amalakum wa rasuluhu wal muminuuna beneen bi ci des mooy penc mi penc mi nag xam ngeen ne wa shaawirum fil amri isa kan ala llah inna allaha yuhibbul mutawakkilina sadaqallahu alazim maa ngi leen di gërëm daara feeñ ci am ci di ñaan yàlla tamit ñu man fi waat am ay daje yu baree bari démb dégg ngeen programme bi nga xam ne nii moom laa wax ci daara ne moom laay wéyal te yéen a ko seede te man damaa bëgg lu ma wax ma def ko ndax ëllëg li ma ciy gën a seet mooy allahu subhanahu te xam ne ëllëg danañ ma ko laaj aw kullukum raan wa kullukum masulan an raayati yi